di ko tuub nag di ko tuub bu baax tamit waaye xër gu ëpp rek dañoo xër ci maam bàyyiloo dañoo dañoo ci maam bàyyiloo moo tax mënuñoo tànqablu daraam daal dëgg yàlla li ko ñépp seede rek lañuy ñuy seede moom njàng moo ko ñor ak njàngle lii di ba mu ko waree def yàgg na waaye nag suñ borom moo koy doog a tudd parce que bari na ñoo xam ne nii ñu ci bari loo xam ne nii ci ay daara defal defal na leen lu mel nii par exemple man sama doom internat ba mu ne taxawaay bu am solo la cay taxaw taxawaay bu am solo ginnaaw taxawaayam sax moo waral daara jooju tey jii am nay këyit valable na ba sama doom ma nga fa déwén lay war a def CM1 CM2 te ministère reconnaître na leen te taxawaay boobu moom moo ko fa waral moom tamit njiit lu am solo la fa daanaka boroom daara ja teg na ko foo xam ne nii sax bu bu sañoon sax daan ko yow yaa moom daara ji te loolu Pastef moo ko waral ak yitteem ak aalam bu ñoo parents d'élèves bi jotee day dem daanaka daara ji daal mën naa ne moo koy présider te loolu tamit mooy li ko gën a ñor ci àddunaam mooy arxuraan ak liggéeyal sëñ Tuubaa kon boog yàlla na ko suñu borom gën a jàppale te barkeel liggéey bi. te ko ba lépp lim ci yéene mu dem ba weesu fii ndax nag di dafa waroon a fekk sax ñu naan école yi parce que xane xëy na xale laa doom laa ci moom xëy na tamit xale laa waruma cee xam lu bari waaye moom daf maa ko daf maa wéttali ko sama baay la sama maam la mais day waxtaan ak man kon boo nag ni dafa waroon a fekk ñu naan école yi école yi parce que moom fii la njëkk a nekk Touba. ba mujj mu nekk mbirkilaan la mujje mujj fa la jëlee retraite doon fa inspecteur boobu rek bi muy doon professeur rek li waroon a door mais nag sëñ bi mi ngi koy door a namm ci moom waaye nag comme mu ngi koy door a namm ci moom li am ba pare moom rafet nañ ci njoot jàpp nañ ne dina gën a kawe yàlla na ko sëñ Touba defal barke sëñ Saliou barke Touba bi Touba gi muy liggéeyal ak dëkk bi ak yitteem ak pasteef maa ngi jéeglu ñëpp. mën naa ni sax waruma wax bu kilifa yi waxee ba pare waaye faaw ma sànni ci di sant tamit bàyyiloo mi mën naa ni bàyyi la ci ñun inspecteur la ci ñun lépp la ci ñun ndax donte bi ñu defee formation bi ñëw ci moom réccuñu mukk lañ ñu boole xale yi ndaxte mën nañ ni formation la mais continue la parce que lépp loo xam ne war na ci ñun mi ñu koy defal ñu ngi encadré xale yi mu yor mais en plus mu ngi boole ñoo xam ne ñun ñu ngi encadré wàccuñu yoon benn yoon te li ma gën a neex comme li ñuy wax naan Touba soo waxee ñu ni français day yàq xale déedéet nga jël jikko ji la ñu wax te xale yi daara ji ak yeneen xale yëpp ñu ngi leen sant bu baax ndax à chaque fois suñ siidi mo comment dire suñ Muntaxa saa yu wàccee loo kaamil ñun balaa ñoo dugg ci suñ classe dañuy wàcc ci école te loolu nekk la lu gën a marqué man ak madame Fall ak oustaz ak madame Ñaam yi ci école en plus xale yi donte classe métti na parce que li ñuy wax rek booy dog di ñëw jikko bu nekk di nga ko gis mais nag yàlla may nañu xolu muñ ba jikko bu ci nekk dinañ ko accepter parce que monsieur si jàngal nañu ko nee na élève boo ko yoree façon jikko bu nekk di ko gis mais lépp rek yaay accepter parce que yaa bëgg mu am xam-xam aussi tamit xale yi xamuñu dara ay muumin lañu rek comme man sama classe mais nag liñ naan xale mag moo ko mën a teete te ñoom samay xarit lañ sama lépp lañ ndaxte donte malgré dama leen di jàngal mais suñu génnee dañuy waxtaan lépp dañ koy def ndax nit tamit soo ko dee jàngal fasal ko sa kanam ba du la ñemee loo ko wax aussi tamit du ko nangoo def di ñaanal maam Baye Lo mi moom tamit di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér may ko bépp mboolem jullit bu toog fii ndaxte jàpp nañu téye nañu noo xam ne mën nañu sax suñu parent yi sax téewewuñu ko di sàkku ci tamit lenn ndaxte parent d'élève bu ci nekk sa élève fu mu nekk war ngay dem di ko nemmeeku di xool ba xam ci lu muy nekk war ngay dem di ko xool ndaxte mën na nekk ci classe bi di def leen loo xam ne maître mën naa bañ a xam ba xam kër gi yaayam mi ngi koy xool wala du ko xool loolu tamit ñoom ñoo ñu si mën a jàppale ku ci nekk ñu ñuy wax jikkoom nan la nekkee ci kër ga pour ñu tamit ñu mën a gën a veiller ci ñoom maa ngi jégalu bu baax na ci kàddu di ziar ñëpp di jégalu nag di lott ci kàddu gi di sant ñu fi teew ñëpp di am xel mu dal ci ndaje mi moo waral ma jël kàddu gi di ñaan képp ku fi toog di ko yalwaan maanaam mu ñaanal bayloo mu yàgg fi lool te wér ba lii mu tàmbali mu yeggali ko ci sagoom donc Serigne Touba loolu rek laa doon ñaan. xam naa sant nañ baax soxna si kàddu yi am na solo kon dañuy jox bayloo rek bu defee moom mu def résumé bi bu amee lu mu ci dolli mu dolli ko ci avant kàddu gi di ñëw ci Cheikh Abdou Lahad. ok jërëjëf sëñ Ibrahima <clears throat> daanaka waxtaan wi dafa mel ni mat na xam naa dinaa sàkku rek ñu mayaat ma tuuti ma dellusiwaat ci. teewaayu sëñ Laat sëñ Abdou Lahad Mbacké ni ko Modou waxee noonu rek la amee xam naa ni kilifaam moo ko yebal xam naa loolu waaye dafay dafay tolloo am na ay yable yoo xam ne day day tombe ak ki nga yebal sawar ca koy la koy yebal loolu moo moo moom maanaam kilifaam saa yu ko yebalee ci man ci lu mel nii xamaa li dana dana sant ca boppam ndax xiir gu ko suñu borom xiir ci man te loolu man lott naa ci niw naa ci doole dama dama ci sant sëñ Tuubaa rek te tàmbaliwul tey lépp lu ma lu ma jege lu ma laal mu lu wàññiku ci man muy lu ma xewle sama kër muy su ku may joxe muy lu mu mënti doon ci àddina comme sëñ am sa mii kilifaam sama mooy sama kilifa dana ko yëg waaye moom mii bu ci teewee man damay gis ni dañ ko yebal waaye la cee sawar cawartu cawar cawarteg boppam ngir sama digganteeg moom kon maa ngi yàlla maa ngi yàlla mu bàyyi ko fii ba mu yàgg lool dëgëral ay cëram waaw ba wóoruma ne lii mu ëmb lépp bëgg yéene ko liggéeyal maamam ba def ko ba def ci lu mu bëgg lépp ba def ci la sax lu kawe jortam ci daraja Seexul Xadim jërëjëf Mbacke sant nañ bu baax li ci toppaat itam mooy ma sant personnel bi personnel bi mooy ñuy liggéey ci école bi ni mu ko waxee rek soxna si moom bu ma ko waxee mu yóbbaale na keneen ki ci des ñaar lañ bi nga xamante yàlla mu ngay booleeg ñoom ma bokk na ci li may sonal dama leen di wax toujours lu leen man am na loo xam ne mënu ma koo def école yaa ngi koy def waaye man dama ko amul sañ-sañ ndax koo xam ne kii sa liggéey mooy teg jàngalekat yi ci ak école yi ci yoon ngay liggéey bu retraité mënu mënu teg yoon du ko moo tax damaa dem inspecteur Guèye euh, Moustapha Guèye li tudd ku baax la moo yoroon IEF Mbacke moo nekkoon inspecteur bu Mbacke ba retraité lu xaw a benn nii rek la def ndax dafa ubbi école boo xam ne moom nag dafa tànn moom di jàng di tàggat ay jàngalekat maanaam jàngale ay mag lay jàngal pour ñu mën a nekk jàngalekat ndax loolu mooy liggéeyu inspecteur ci école laa ne ko seetal ma ci sa gaañi ñu def formation bu mat sëkk seen yar seen jikko seen xam-xam seen lépp mate nga boole ma ak ñoom loolu moom moom boole ñii mais am naa fi ay demande yu bari waaye man loolu foofu laa ko jaar bokk la ci li ma sonal ndax soo woote woon rek ne ku ñëw baax na ku ne mën naa ñëw te doo ci son waa mais maa ngi leen di sant maa ngi di gërëm ay soxna lañ. waaye duñ tardé duñ absenté. waaw duñ tardé duñ absenté ba defoo mooy ko ba école tëj. waaw xarit nag moom li mu ko waxee léegi rek moom xarit moom xarit la euh, moom itam li ma ko waxee léegi rek li fi ma féetee ci école bari na trop. boo gisee ma mën a dem ba Dakar wala Kaolack wala feneen ay ay fan sama xel dal lu ma ni bant du du du damm tànk ñëwaatuma ci ci ci bépp fànn nag waaw di xool xale yi. liste yi dara lu ci manqué administration bi dara lu ci manqué bu ñu génnee récréation sax day ànd ak ñoom ba ci biti ndax tali bi jege na di xool ba xam xale yi daw ñu jëm ci tali bi wala nekkuñ ci lu lu ñu war a ne wanag ak yeeg dugg beeg génn beeg lépp mu ngi koy gérer moom it koy sant bu baax a baax a baax waaye boppam boppam la koy boppam lay liggéeyal rek boppam lay liggéeyal lu nag mooy ma xamle aussi ni yéene yi def naa juñu naa ko léegi dama ci bëgg dellusiwaat pour ñu xam ni taw ak tàmbali la rek. mais kuuru majalis bu bind naa ko ci tableau ba sax bokk na ci programme bi maanaam gone gi nga xam dafa jàng alxuraan ba mokkal moo xam beq na wala bind na wala defagu ko ñëw fii man danaa fexe ba alxuraan parce que alxuraan jàng ko mokkal ko li muy baax baax baax soo ko fa bàyyee rek dem defi leneen bu yàggee nga ñàkk ko ba nga xam ci biir programme bi euh, euh, beqi googu ak révision boobu nafa googu da ci da ci day ñëw en même temps ñu jël programme mu tëral waaw on koy wax oustaz toujours tëral téere majalis yi nga xam ne kon nekk gi mu nekk fii daanaka du ko xaw du ko du ko wuti lekk nekk gë nekk gëmaroo nekk bu nekkee si daara ji fii mën nga fay nekk di jàng français di jàng ay informatique wala leen waaye di jàng téere yi xam-xam yi ba boo fi yàggee tuuti bala ngaa génn mën ngaa génnaale du sori ci téere yi loolu it bokk na ci ci ci ci projet yi li ci des itam nag mooy euh, euh, li wax rek ci parents yi ma daal maa ngi tàllal loxo ñëpp di sant itam parents d'élèves yi nga xam ne xëy na jëluñ kàddu xëy na xale yi may gën a xam seen tur euh, xale yi ma ne xëy yaa may gën a xam seen tur mooy yaa may yaa may di gën a miin waaw sant moom ñoom itam parce que itam parents yi doon doonte xëy na euh, daje bi mi ngi door a waaye li ko li leen war a préparé su jotee ñu def ko te loolu duñu soo soñu duñu tardel nga woote tey ñu ñëw ndax tey mooy moo moo moo bi yan nañ commencé def nga woote tey ñu ñëw toog ba ba ba mi jeex maa ngi leen ci sant maa ngi leen di gërëm kon seen i doom moom xam naa xale yi waa xëy na waajur yi miinuma leen waaye nag ni ñu ko waxee rek bu groupe bi taxawee daal na ci ñëpp tàbbi ñu ko sànqee ak euh, Modou bi waxee ñu ñu jàppee ko noonu ba nga xam ne école bi fu mu waroon a yegg yëpp dina fa dina fa yegg kon loolu mooy ci laa ci bëggoon a dolli di sant itam docteur Balla Mboup lu mel ni lii ma def ci éducation loolu def ci santé ndax Modou bi wax na ko léegi moo nekkoon médecin chef régional région bu Diourbel ba retraité dafa dem Saam Jaxate Gaye ubbi fu benn clinique boo xam ne bii de ko ñëpp xam si clinique bu sëñ Tuubaa la clinique bu sëñ la eh, mu ubbi ko fa eh, moom itam lu mel ni rek liggéeyal sëñ Tuubaa képp la ci yóbbu mënoon naa dem UNICEF jël ko wala yeneen ni ciy jël ko mu dem defi ay leneen waaye defu ko lu lu lu mel ni lu mel nii rek loolu def ko moom itam di sant Modou Sankhé mii moo ko eh, Mor Diarra Euh, xëy na seen i gone ngi fi waaye xam xam maa ne bu fi seen i gone nekkul nekkul woon man sama jëmm ji dina tax seen teewaay bi ñu teew ak xëy na xam si gi nga xam sama diggante ak sëñ am sax Modou Bey moom du ma yaa ma di ko sant ndax mooy man mooy ma du ñaar kenn lañ Modou Bey loolu suñ borom moo ko def ñëpp xam nañ ko ñëpp mën nañoo seetlu ni maa ngi lu Bey du ñaar kenn lañ aboo itam may xam le ni aboo jëng mii toog na ci place am bii daanaka su weesoo dongo daara yi yi ñu daara ja ku fi ñëw yor sa làpp sa doom moo la fi yebal waaw nekk ku si ñëw nii ku fi ñëw jàpp sa loxob doom rek moo moo la fi yebal ci ay pexeem bàyyilu mais demal ci école bi wax a wax yàlla la ko boole nit ñi te loolu wax na ma bu yàggul rek waxtaan lañ ci ni ñu ko yaatale ni ñu ko gën a gën a am na ay projet yu ñu xalaat yoo xam ne